Euh, du opposé wu à des hommes. Mhm. mais euh, ñi fi nekk bon le président Diomaye Faye euh, amul lu ñu koy wax ah parce que vraiment benn yoon la fi xaw a menacé mooy bi mu demee Mbourkat. Mhm. mais son premier ministre mënuñu wax loolu ay maanaam. sur mhm. toutes ces sorties. il fusille des gens bu dul magistrat yi. di presse bi di opposition bi est-ce que tamit c'est pratique. war nañ ko appliquer au sommet de de l'État. non mënoo nekk too toog ci branche ba pare di ko siyee c'est-à-dire que discours opposant discours opposant mm -hmm. mais discours c'est-à-dire que mënoo fi nekk di attaquer ay institutions di attaquer ay magistrats di attaquer di attaquer ça c'est pas possible. Mm -hmm. et xam nga ne lii baax na nga bàyyi ko mu dox. Mm-hmm. xam nga ne lii baaxul nga dindi ko mu deñ parce que yow fi ñu la sant fi nga nekk nii fi nga toll li ñu la sant mooy nga doxal te booy doxal nag da ngay boo sentiree ne lii magistrature bi dafa am problème temps tant euh, problème euh, benn problème ñaari problème ñetti problème mais on t'a amené pour solutionner les trois problèmes la mm-hmm. et tu dois te mettre à la à trouver des solutions pour ces trois problèmes là on t'a pas demandé de venir pour nous dire que problème yi lii la ak lii ak lii mm-hmm. dafay uute ak boo gouverner gul donc il faut de que ñu prendre conscience de sa xam ne que affaire état du affaire u caaxaan mm-hmm. et puis c'est-à-dire que euh, boo nekkee kilifa wax day néew. jëf day bëri mm-hmm. moo ëpp solo.